salaam salaam daleen leen ci seen podcast mën na nekk podcast bii dugg fépp ci Sénégal di waxtaan ak ndaw yi nekk seen town di fa xëy ak di jàppale seen ay moroom ci wàllu entrepreneuriat wut xëy ak sàkku xam-xam. tey nag ñi ngi ci dëkk bi ñu daan woowee capital du rail ñu koy woowee tamit benn dëkk ñaari gaar fii mooy dëkku Lat Joor Ngoone Latiir Jóob te dëkku maam Alaaji Maalik fii mooy dëkku tamit troupe du soleil levant ak groupe bi ñuy woowee waa Flash kon nag xam ngeen ne ñi ngi Thiès ñu fàttali ne région de Thiès ñetti département la am Thiès Mbour ak Tivaouane tey nag ci departement wu Tivaouane la ñu ñëw ci dëkk bi ñuy woowee Ngaye Mekhe seet si fi benn jàmbaar bu tudd Lamine Dieng Lamine mi ngi yëngu ci liggéeyu uude di defar dàll ak lépp lu jógee ci der bu ñu mën a ëw. Lamine na nga def. Lamine lan moo la dugal ci cordonnier waaw man nag li ma dugal ci cordonnier bi dama noo jàng waaw dem ba benn instant jàng bi doxatul genre yooyu. waaw ñu ngi ñëw si atelier bi xam nga rek di ko jaayante waaw benn instant début bi moom métti woon na quoi mais instant pour l' instant daal maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi sant yàlla waaw affaire yi mi ngi dox naa ko naan. macha allah. fi nga dëkk ci ngaay. waaw fi laa dëkk fi laa dëkk fi laa juddoo fi nan la lay def nga dëkk fii màggee fi demoo feneen dem ba am fi sa atelier. waaw ah, loolu fierté la rek fierté la rek benn instant moom jeune moom soo ko nekk da ngaa war a gëm sa bopp gëm li ngay def waaw soo ko defee rek yàlla dina la dimbali waaw waaw loolu laa gëm. yow même bu dul sax ci domaine cordonnerie ci domaine yëpp lan la ndaw soxla pour mën a dem ba atteindre objectif dem ba am liggéeyu boppam. waaw waaw mais lépp loo gis tamit euh, dafa laaj gëm-gëm lépp loo nekk tamit dafa laaj gëm-gëm waaw surtout nag surtout ñun si cadre si cadre bi ñu liggéey wàllum cordonnier bi. ban importance la jàng métier bi am ci liggéeyu lépp lu jëm ci wuute. waaw jàng métier bi benn instant am na njëriñ na ci jëlee xam-xam ci jëlee xam waaw bëri na ay kii daal li si nekk loo xam ne daanaka kenn mënut a lépp waaw. Hmm, mais lan ngeen di defar fii yéen essentiellement. waaw fii moom dañuy defar. lépp ah dañuy defar ceinture dañuy defar saag façon daal boo bëgg soo commandé ñu defaral la façon daal boo mënti bëgg soo ñëwee fii moom waaw macha allah so ñëwee daal dina la defaral li nga bëgg di nga kontaan daal. sport mu ngeen ko defar. ñun ñii taal bu mun sport ñun nañ ko defar ça dépend rek si façon bi ñu bëggee rek. ñun ñooy seen ay clients fii nii pour la plupart. waaw fii gars yi moom fu ne la ñuy jógee ah fu ne la ñuy jógee daal yi tamit fu ne lay dem. yow en ah, détail rek ngay jaay wala da ngay def gros tamit. non damay jaay détail damay jaay en gros. comme bii di waaj a ñëw nii ñan ñooy nekk client yi gën a bëri fii. waaw waaw. dëkk bi wala ñu dañuy jógee ba feneen. waaw même même waa dëkk bi tamit. dañuy jënd mais li si ëpp li si ëpp dëkkuñu fi daal jógee ay Gambie waaw saa yi ay Burkina yeneen dëkk yi Dakar genre. yeesaay léegi après fii nag lan moo ci topp xam naa ne ku am ambition nga waaw. booy bu ndaw nga dem ba am sa boutique macha allah lan mooy sa rêve lan mooy sa projet daal après fii. waaw waaw benn instant moom su moom ñaan naa yàlla daal man dépassé fii dépassé dépassé niveau bi ma nekk waaw ñaan naa yàlla am ay boutique boutique waaw. te koy am sax. waaw incha allah yàlla baax na mën na nekk kuy ndaw ci diwaanu Thiès te bëgg tàggatu am na formation yoo mun def te du dikkee dara mbaa mu dikkee la lu mën ngeen tàggatu ci dessin batiment couture stylisme production végétale électricité développement local ak yeneen yu bëri yoo xam ne soo leen demee ci suñu page Instagram ak Facebook di ngeen fa am information yi ngeen ci soxla yépp biir Thiès mën nañ ne secteurs yi gën a dox ci wàllu liggéey ñooy aviculture artisanat tourisme arboriculture pêche ak yeneen yu bëri yoo xam ne mën ngeen ko gëstu soo leen demee pôle emploi Pôle emploi wu Thiès mi ngi nekk cité Lamy ci wetu CDEPS Pôle emploi wu Mbour mi ngi nekk quartier Escale ci avenue Léopold Sédar Senghor Pôle emploi wu Tivaouane mi ngi nekk ci préfecture Tivaouane. Eh, jarul pour lek ah heer jaune rouge team équipe bu champion lay play Sénégal yi bëri feeling fa ma fekk damay gëlën sama tàll yëpp wigit du ma dox ci lu tilim dox ci lu ma yaa ngi gën samay clip xale yi xam nañ aw ma limite mineur bu dee sama musique dégg gën naat samay 18 àdduna ndekk te jaar jaar mooy lépp jaar jaar àdduna mi ngi ni jaay taar du fay àdduna métti na waaye nag Baay Faal bul tiit ndax Baay Faal bul tiit ma ne ko yaakaar du jeex Welcome back ci seen podcast mën na nekk en direct de Thiès comme ni ñu koy defee ci région bu ñu dem bu ñu waxtaanee ak benn entrepreneur ci liggéeyam ba pare dañu daal di ak ki nga xam ne mooy champion wala champion du réseau des champions pour réussir au Sénégal ñu fàttali ne réseau boobu mi ngi doon benn kuréelu ay jeunes yu jóge ci région yépp ñu xamee ko gindi bépp ndaw ci wàllu samp sa këru liggéey wutum xëy ak sàkku xam-xam fépp ci biir Sénégal réseau bi mi ngi def vraiment liggéey bu am solo ci accompagnement jeunes yi dinañ leen jox seen contact balaa émission bi di jeex waaye balaa loolu dama fi dalal tey jii ki nga xamante ne mooy champion RCRS de la région de Thiès ñu koy woowee Abdou Salam Pen salaam naka mu bro. ça va ñu ngi ziar. yaa ngi kuul sant. naka Thiès mi ngi neex. waaye Thiès mu ngi mu ngi nii rek. <laughs> salaam yow ci lan ngay yëngu ak nan nga def ba ñu coopté la nga nekk champion réseau bi. waa man benn jeune Thiessois la euh, maa ngi yëngu ci ci entrepreneuriat nekk aussi un jeune engagé dans les dynamiques communautaire et je pense que ci casquette boobu noonu moom moo gën a favoriser sama sama cooptation ci réseau de des champions pour réussir au Sénégal. tey jeune Thiessois yi nga xamante ni ñi ngi ñuy déglu toll ci wut liggéey wala jàng métier ban accompagnement lañ mën a jëlee ci réseau bi. mën nañ. sensibiliser mais mën nañ orienter aussi lu bëri ndaw ñi sur les opportunités de réussite yi nga xamante ni nii moo nekk ci sunu terroir yi mais aussi vers les dispositifs d'accompagnement de la jeunesse yi nga xamante ni moo nekk Thiès et un peu partout aussi dans les localités du du Sénégal que ce soit des structures comme la DER et 3FPT ANPEJ FONGIP FONSIS et tout autre structure bi nga xamante ni état greffé na ko ci biir dispositif d'accompagnement de la jeunesse boobu noonu. ku bëgg contacter réseau bi nag fan lay jaar. ndaw bu dëkk Thiès mën na ma contacter wala mu contacter sama suppléante Sala. sama téléphone c'est le 77 779 94 20. 77 779 94 20. Il y aussi la page Facebook qui existe, Réseau des champions pour réussir au Sénégal, jeune bu ko tapé di nga ko di nga ko gis et à travers ce canal aussi mën nga am plus d'informations. Merci beaucoup Abdou Salam ñu ngi lay jaajëfal bu wér di la souhaiter bonne continuation. jaajëf sama gars yi di leen wax dal leen jàmm biir Thiès yéen tamit. Merci beaucoup. merci suñu auditeurs yi déglu tamit podcast mën na nekk maa ngi leen di jox dox daje ci fan yu néew ci beneen région ñu dem seeti yeneen entrepreneur yeneen champion léegi-léegi jaamu dong la